pratique alors jàngat bi ak euh, doyen assan Samb euh, daanaka dañuy jël prétexte ci euh, démb muy benn verdict bu daanu ci kii di Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndao ñu leen di toppee ay kàddu yoo xamante ni xañ na waroowul ñu bëri jàpp ni yëf yi dafa laale ci wàllum politique am na yi tamit ay suñu naataangoo yoo xam ne woowul woon nañ leen bàyyiwaat leen ñoom ay xibaar yu ñu bindoon ñu jàpp ni xibaar yooyu tamit mën na yëngal am réew mu mel ni ci jamono ji fi président Macky Sall nekkoon i tamit amoon na lu ni mel jamono ji président ba Bassirou Diomaye fay moo fi nekk ñuy wax ni dafa am ay kàddu wala ay doxalin yoo xam ne mën na yëngal réew mi ndax loolee lépp euh, loolu la doyen Assane wala xañ na mauvaise interprétation la jërëjëf naata ñu amaat mbégte ñëwaat si TFM effectivement di sant yàlla surtout nag bi Sénégal jàllee élection yi absolument depuis lors ñëwaatuguma fi woon c'est vrai euh, nekk élection yu dal mhm. yàlla dimbali ñu réew mi mën a dal mhm. am stabilité mhm. euh, ñu ciy sant yàlla bu baax di ñaanal ñi nga xamante ne falu na yàlla may leen euh, ndam parce que seen ndam aussi mooy ndamu Sénégal effectivement gis nañu depuis quelque temps quand même parce que ñu ngi fi depuis deux mois ñoom pratiquement ñu gis amoon ci président Macky Sall lu si bëri commencé commencé di amaat jëm ci notamment euh, arrêté euh, ay nit parce que dafa am lu ñu wax et cetera def ay déclaration euh, foogoon nañ amaana sax yooyu duñ ko teelaat dundaat mais ñu ngi koy commencé dundaat donc Bah Diakhaté mais aussi ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Ndao imam dañuy jëkk wax ni dañuy ñaaw lépp loo xamante ni lu jëm ci violation vie privée nit mm-hmm. ak saaga wax lu ñaaw ak tuumaal nit loo xamante ni rafetul ci dara loolu moom mënuñu ko nangu mënuñu ko cautionner dañ koy condamné bu ñu bëggee dund en société dañuy nekk dañuy am ay comportement civilité hmm. mooy comportement yoo xam ne mën nañ ko nangu hmm. suñuy aada suñu cosaan suñu diine ak suñuy loi daf ko nangu te yooyu yëpp su li ma lim yëpp daf ko dàq aada daf ko dàq diine daf ko dàq loi daf ko dàq parce que Sénégal protection vie privée bokk na ci li ñu gën a protéger d'ailleurs jël nañu loi yu bees nga xam ni boo demee article 431 du code pénal euh, 27 numéro 27 dama day protéger fortement euh, la vie privée euh, pas seulement euh, personnalité yi publique ñiy gérer mais aussi les citoyens nga xam nit waroo xawi sutura parce que vie privée mooy sanctuaire mooy domaine boo xam ni waroo ko laal ci nit ki mhm. donc quel soit looy def da nga war a sóoraale cependant ñu def attention parce que boo seetloo depuis quelque temps pouvoir bi bi mu ñëwee ñoom exécutif lañ ñooy gouvernement alors boo seetloo dañoo jëkk attaqué parce que ñetti ñeenti pouvoir lañ am gouvernement mu exécutif assemblée législatif justice ak presse mooy quatrième pouvoir ñii di doxal ñii di contrôler ñii di àtte ñii di fësal di di di di di éduquer di former di encadrer di yee alors boo xoolee systématiquement pouvoir bi mooy gouvernement bi ñoom ñu ngi commencé attaquer yeneen pouvoir yëpp benn justice lañ jëkkee ñu ni dañ koy defaraat parce que justice ni muy doxee et cetera ñu ngi ci assise yeneen ko doon wax sànq deuxièmement ñu attaqué presse bi muy attaqué nañ troisième pouvoir léegi ñu ngi jëm ci quatrième pouvoir bu ñu fa jógee assemblée la ñuy attaqué muy deuxième pouvoir xam nga loolu xaw ma ñoom rendre nañ ci compte ou pas. mais ñu ngi bëgg a def li nga xamante ni moom lañ doon di lépp mooy concentrer les pouvoirs ci seen loxo maanaam loolu mooy seen objectif nga fexe ba gouvernement bi mooy l'exécutif mooy le premier pouvoir mën a concentrer tous les pouvoirs boo xoolee ñu ngi systématiquement di commencer attaquer tous les pouvoirs attaqué nañ troisième. attaqué nañ quatrième te ñu ngi jëm ci deuxième pouvoir muy assemblée nationale. loolu mooy le rêve de tout gouvernant képp koo xam dañ la fal comme Senghor en 62 da dangay jàpp ni yow da nga war a am tous les pouvoirs. parce que yow yaa légalité ak légitimité yow lañ fal dangay ngay wax man 54 virgule nangam pour cent tout le temps dañ koy répéter pour ñu xam ni ñoom ñoom rek ñoo war a yor pouvoir. or loolu bokk na ci ñoom lu ñu doon jëkk a xeex parce que. li ñu yor ñoom mooy lan mooy exécutif pouvoir boobu benn pouvoir ëpp ko problème man débat bu ñu waroon def assise yu ñu waroon def rek pour bañ a perdre temps dañu waroon attaquer directement l'exécutif bu ñu attaquer l'exécutif xam nga nu ñuy def booba ñu ni mais ñun pouvoir exécutif bi ñu yor nan la ñuy fexee ba changer régime présidentiel fort bi président dafa am trop de pouvoir nan lañ koy wàññee. est que du commencer par lii tamit muy judiciaire bi ñu attaqué ndax bu ñu ba war a changer aussi. judiciaire bi lépp yàlla xam na ni. Uh-huh. lépp spécialiste xam nañ li may wax. lañ foo ñu foo wax rek nit ñi xam nañ wax nañ ko ba pare. d'accord mën nañ ci xuus bu leen neexee ci kanam. Uh-huh. pour ñu xool réforme yi. Uh-huh. les réformes fondamentales mooy ñaari axe la est-ce que dañuy couper le lien ombilical entre le parquet. le procureur et le ministère de la justice mooy laal kenn ñimewu ko laal benn président ñimeeku ko laal loolu réforme boobu beneen réforme mooy est-ce que président day génn conseil supérieur de la magistrature ou pas keneen ñi ma kenn ñi ma góon laal yi ci des yëpp ay réformettes la ay ay réformettes mooy yooyu ñu ngi ci woon tout le temps indi nañ fi bracelet électronique pour pour mën a faire avancer les choses indi nañ chambre criminelle mu remplacer euh, euh, cour d'assises ainsi de suite réforme mosu fi jóg donc dañuy améliorer à chaque fois loolu mënul ñàkk te day continuer mais fondamentalement exécutif bu ñu ko attaqué woon xool ñoom li ñu promettre woon mooy le régime présidentiel fort nan la ñu koy euh, wàññee jox judiciaire jox assemblée jox press bi jox ñeneen jox ñeneen à partir de moment là dañ mën a dëxañaale ci biir les réformes judiciaires tëxëñaale ci biir les réforme réformes législatives parce que assemblée kenn ëpp ko problème assemblée ni muy fonctionner nii arrangé wul benn sénégalais le profil du député nañ koy seetaat kan moo war a nekk député est-ce que day am assistant parlementaire nan la député bi war a comporté woo ainsi de suite yooyu yëpp dañ ko war a seetaat la presse fondamentalement presse ñu ngi gën ci assise yàggul ñu ngi door a déposer seen i conclusion xam nga ñooñu ñu ngi ci seen liggéey boobu tamit léegi ñu xool également nan la ñuy jëmmale loolu je pense que bu ñu defoon noonu ñoom ñu attaquer seen propre pouvoir mooy le pouvoir exécutif hmm. ñu def économie de temps dinañ fexe ba ñoom ñu gën a modeste mooy boo leen bàyyee ci tendance bi ñu jël nii dañuy attaquer systematiquement tous les autres pouvoirs nërmeel leen teg leen ci suuf pour que ñoom ñu renforcer seen pouvoir bu boobaa effort bi ñuy def mooy li ñuy tuddee effort mooy dañuy jël premier ministre bi jox kay pouvoir or aaronaay marota boo joxee euh, premier ministre pouvoir mook président duo la te boo xefee sax ñu am choc et la c'est pas une réforme la réforme bi ñuy xaar mooy les pouvoirs institutionnels mooy assemblée le pouvoir judiciaire euh, la la euh, presse tout cela nan ngay def ba renforcer seen pouvoir dans le cadre républicain ba nga xam ni kenn également du déborder mais président dès le dès le début assise yi lu mu def daan ni attention à la république des juges waaw nan la euh, république des juges di amee juge domaine judiciaire rek la mën a agir est-ce que ban juge moo mën a jël décret di gérer par exemple euh, euh, la presse wala di gérer l'alimentation wala di gérer euh, non la, le, le juge ne gère que les domaines judiciaires et l'organisation du judiciaire pour le moment ministère de la justice moom moo yor loolu est-ce que dañ koy jox waat magistrats yi ñu yore seen propre organisation judiciaire di boom di bumi et cetera loolu du loolu du gouvernement des juges faux débat la bu ñu instauré woon France ñu transféré ko fii jël concept bi indi ko mais yooyu naxaate la euh, naxaate bi mooy nañu xam ni bu ñu bëggee am démocratie véritable dañuy mel ni Afrique du Sud Afrique du Sud le pouvoir euh, le président Zuma nekk na président la République jël xaalisu trésor public réfectionné ci këram ñu daan ko ne ko delloo xaalis bi fukki chef d'inculpation ak juróom-benn teg nañ ko ko ay tuuma alors que moom président ñu ñun loolu lañuy rêver loolu du république des juges loolu démocratie la le fils de Biden le fils de François Mitterrand mais loolu démocratie rek la maanaam sénégalais yëpp yem devant la loi. Ah, mais mais doye. Euh, xam nga yaa ngi koy wax sànq ne que dañoo tirer seen légitimité ci score bi nga xamee moom la ñu am ci élection présidentielle bi si bien que euh, le premier ministre bërki démb bi mu fi génnee di wax sax léegi nañ li mu wax mu ne. amul compte bu mu rendre ay journalistes amul compte bu mu rendre ay politiciens. grande erreur askan wi. ñoom laa amal compte te parce que askan la jàpp ni ñoom ñoo ko fal quoi ñoom la amal. Euh, xam nga erreur bi mu def mooy bu ñu jëlee l' article neuf de la déclaration des droits de l'homme et des et des peuples non euh, comment dirais-je convention bi nga xam ni moom moo tënk les les les les les la la la la commission des droits de l'homme et des peuples bi nga xam ne Afrique ñun ñëpp ñoo ci tënku article neuf sur le droit de de l' droit de la pensée droit de l'opinion nga ñëw article 10 de la constitution du Sénégal bi consacrer la liberté d'expression xam ne mu ngi jóge ci liberté de pensée ak liberté d'opinion liggéeyu journaliste bépp yëpp yëpp mu ngi tënku ci effectivement droit boobu population yi am ci ñu informer leen le journaliste jëlul information pour boppam booy rendre compte au journaliste rendre compte au journaliste tu rends compte au peuple journaliste bi relais la donc bu def erreur boobu mooy li ma waxoon sànq c'est-à-dire que premier ministre bi ñaari ñaar ñi mu jàpp ne adversaire am la ciblé un les opposants politiques deux la presse parce que presse bi bu defee liggéeyam correctement du wax toujours gouvernement bi lu ko neex parce que c'est un devoir de d'alerte et de veille dafa war di alerte di veiller quand ça mu ni ça va def ko nag ci dans le respect des normes et des règles bañ jiital benn intention yàqal kenn wala defaral kenn. Mhm. mooy intention malicieuse nekk de bonne foi. Mhm, à partir de ce moment là liggéey bi ku si nekk chaque son rôle moom premier ministre bi dafa am rôle balayeur bi mu jël këram dafa am rôle dafa am responsabilité état euh, boo xamante ni c'est important ka ngay toggal añ dafa am responsabilité taximan bi chauffeur ba kaneen euh, baykat ba ouvrier ba ku si nekk dafa am responsabilité. boo xam ne c'est une responsabilité constitutionnelle parce que loi yi ñoo ko encadré te il faut que ku nekk ci ñun bu ñu bëggee vivre en société ku nekk ci ñun respecter euh, euh, euh, droit yi keneen ki mais boo nee boo nu ma rendre compte c'est la première erreur parce que doo roi seul un roi moo dul rendre compte. mais eh il rend compte oui mais <laughs> par qui par qui day day euh, organiser meeting Kër Massar. par le truchement de la de la presse. ah day dem les euh, les hommes politiques et la presse aussi font partie du peuple. parce que avant ñu nekk ay politiciens ay journalistes. kan moo instauré la liberté d'expression pour que journalistes yi basé ci seen liggéey liggéey journaliste c'est basé sur la liberté d'expression oui ou non. alors à de ce moment-là journaliste bi bu jëlee information ku mu koy jox du bi li Sénégal am na tey des consciences tey nii. mais loolu liggéey journaliste yi la ginnaaw yàlla bi ñu commencé def édition yeeg bulletin yi en wolof langue nationale. mais ci la nit ñi amee éveil de conscience. loolu lool lool dañ koy fàtte. di joxe résultat oh, élection di joxe résultat élection mais le de la presse est extraordinaire am na benn imam benn jour mos na ko wax il y a de des années. Mhm. mu ni mu ni mu mu ni bu du woon journaliste yi di leen fekk nit këram rey ko te dara du mujj fenn parce que ku ko yëg. Oh, ah, jeex na donc le travail de la presse loolu dañ ko réfléchir ci yeneen réew yoo xam ne ñoo jiitu suñu démocratie instauré ko mu nekk loo xam ne mënul ñàkk il faut nga rendre compte en même temps politique yooyu muy wax erreur boobu la président Macky Sall defoon mais yow mi xamante ni yow la yàlla fal yow yaa njaboote opposition bi. moo doon wax réduire l'opposition à sa plus simple. mais boo ko defee réduire sa bopp mooy wàññi sa bopp mooy loxo gauche ak loxo droite mu ngi mel ni rek ngay utiliser sa loxo droite. nga beew ba yaakaar ne sa loxo gauche amul njariñ bis boo ko fi dindee nga xam démocratie noonu la mel boo amee parti yi nga xam ne daal ak yow day am parti yoo xam ne dañ la contre loolu mooy essence su démocratie saa boo ko fàttee wala nga koy fàtte fàttelu wala nga koy mépriser di leen snobé comme li fi xewoon gis nañ ko hmm. arrogance boobu arrogance boobu bis bu commencé te mooy commencé nii parce que boo yoree pouvoir dangay ngay commencé gis sa bopp à partir de di nga tarxiis te boo tarxiisee di nga daanu te bari na ñu la doon tàcc après dinañ la jëppi je pense que à partir de ce moment dès yaa ngi door a commencer c'est le moment nga def attention à l'arrogance nga moytu euh, euh, loolu la président du conseil constitutionnel jour boobu prestation de serment doon wax ni enivrance bi pouvoir mënul ñàkk dina ñëw mais bis bu ñëwee na nga fàttali fàttaliku ni population yi ñoo la fal te population yi mën nañ la fi jëlee moment bi ñu la falee nag na nga def attention pour conformer wu aux norme et aux alors ci ci ci réforme justice bi laay dellu si léegi doyen. parce que waxtaan boobu nga xamante ni moom mooy am dafa meloon ni lu nga xam ni besoin la bu peuple bi soxla woon ak li fi xewoon. ñoom i tamit bi nga xamee ni dañuy dagaan baka ba euh, baatu askan bi ci euh, promesse yi nga xam ne moom la ñu defoon ci la bokk ndax léegi rek ñu ngi fàttaliku événement yi fi xewoon euh, kaso yi fees dell. ku ni Samba Sugum Gueye ñu jël tëj ci kaso bi mu mel ni que euh, pouvoir judiciaire bi dafa nekkoon bras armé wu pouvoir exécutif bi lu mel noonu la bëgg mu jóge fii doole procureur bi nga xam ne ku ko neex mu dóor la mandat de dépôt loolu yi tamit ñu wàññi ko lu mel noonu yaakaar naa ni lu jara waxtaane la ba nga xam ne désamour bi am entre le peuple et la justice ba euh, manque de confiance boobu ñu ñu ñu defaraat ko loolu yaakaar naa ni du réformer mais vraie réforme la. Marie. Mmh. les sciences c'est une science ba pare ak côté y a des techniques moo tax ñuy wax science et technique juridique ku ci bokkul mënu ci waxtaan xam nga bu ñu naxante chaque fois bu ñu jàkkaarloog Sénégal dañu di wax li am experts yi ñoo mën waxe loolu keneen ak keneen bu si waxee da ciy wax loo xamante ni du am njariñ yàlla xam na ni nañu toog ñun ñëpp ñu xalaat bu conseil constitutionnel jël woon ay kon Diomaye na dina nekk candidat. non non oui oui ou non. su conseil constitutionnel jëloon kon du ñu reporter élection yi. même même kon justice doxul. Euh, même même la justice la justice est restée debout. dans le processus démocratique dans le la justice est restée moo tax xëy na lépp tegu ci yoon ba ba ba. waaw dama lay expliquer rek ay exemple mais li fi xewoon li fi xewoon. non li fi xewoon. li fi xewoon quand même sa. loolu dafa décrédibiliser woon. si si euh, justice bi. justice donc te loolu lu jar a jooyanti la. grand Assane li fi xewoon bëggatuñu mu xewaat fi rupture boobu nga xam ne moom la ñuy woote tey. mooy li ngay wax nii ay jàpp ay nit ak ay ku wax ñu tëj la loolu dafa war a jóg. très bien mais boo defee lu tëj ñu tëj la. Mm-hmm. oui ou non même man. ak kanam lépp ci yam la loi c'est la loi. parfois dañuy juwaat les deux choses mooy réformer loi bi. ak réformer l'organisation judiciaire wala fonctionnement de la justice parfois loi bi la ñu war a retoucher am na mandat de dépôt yoo xam ni même le procureur il est tenu parce que loi bi moo ko ni bu nit defee lii da ko war a yóbbu mandat de dépôt yooyu mën nañ ko réformer suñ ko mm. bëggee réformer mm. mais gis nga Malick bis boo wàññee pouvoir yi procureur ak yooyu fii réew mi di nga fekk nit dina la fekk ngay dox nii sa bu mu weex mi mu sotti ci diwtiir naan maa tey <laughs> il faut que ordre am il faut que responsable parce que liberté mënul dem sans responsabilité. il faut que conforter maintien de l'ordre bi nga xamee ni am na jamono buñ ko fi soxla su fi amul woon. waaw kon musiba am militaire ñoo jiite wax nañ ay général euh, Moussa Fall ak yooyu lu nekk mais ça c'est des républicains yi doon def seen liggéey juges même les procureurs bi problème Ousmane Sonko amee am na procureurs yoo xam ne dañu plaider contre. les les les les les instructions du du du ministère bu fekkee instruction am na en tout cas contre le gouvernement bi li mu bëgg am na fi ay ay ay ay ay magistrats du parquet taxaw plaider contre li nga xamante ni mooy le gouvernement bëggoon mais loolu mooy indépendance pour vous dire que justice bi mu ngi fonctionner dans quatre vingt dix pour cent des dossiers centaines de dossiers milliers de dossiers chaque jour mu ngi dox correctement chaque fois nag bu dossier bi amee couleur politique wala mu am benn kii politique manipulation yi maanaam ku si nekk ci camp yi dafay jàpp ni moom moo am dëgg te loolu loolu ñu gisoon ci président Macky Sall commencé na hmm. avec Bah Diakhaté parce que bi bi ñu ko jàppee qu'est-ce que le l'APR a fait Seydou ah, Gueye dafa signé benn communiqué pour alors que xam nañ Bah Diakhaté propos yi quand même c'est pas respectueux oui ou non un premier ministre waxuma sax un citoyen ordinaire rek kenn du ko tuumaal yooyu waxuma la ak un premier ministre là aussi on est justice bi mu ngi mu ngi def liggéey maintenant il y a des choses à rectifier je suis d'accord Malick tout à fait mais je dis très bien que boo jëlee Massamba Mademba mu ngi mel rek nga ne nañ rectifier presse bi nga jël sama gars yëpp euh, baykat yëpp ñëw ne leen lu ngeen xam ci presse bi kaa leen ngeen toog euh, man baykat la ah euh, kaa leen ñu toog ñu ñu rectifier affaire affaire presse bi mais loo bëgg ñu wax la ko li ñu bëgg peut-être lañ lay wax mais mais Assane pour revenir ci débat bi parce que débat bi li ko indi mooy quand on parle de force occulte da ngay fàttaliku ni euh, moment yu euh, Macky Sall nekk au pouvoir euh, dañu waxoon ni yaa a force forces occultes nga xam ni ça vise à déstabiliser ba ñu jàppoon ci waa Pastef ñu ci bëri di leen ni dañ doon yor ay gànnaay pour bëgg renverser le régime de Macky Sall mais ñiy toog également dañu jékki-jékki mu am un discours Euh, ba nu jàppee ñoom ba jaxate ils se sont rendu compte que euh, les thèmes yi journalistes yi abordé notamment di dugg ci armée bi di wax des choses yoo xam ni dafa interpellé euh, dafa sensible par rapport à la grande muette ñoom ñu commencé également di génn naan dafa am ay force déstabilisatrices yoo déstabilisatrices yoo xam ni dañu ñëw pour euh, yàqal un peu ñi fi nekk di gere réew mi lii kii boobu parallèle boobu am euh, wax ñu tuuti ci parallèle boobu am entre euh, le régime de Macky Sall mi doon traité de force occulte ñenn ñi ak ñii commencé wax naan am na ku ci dem sax ba bind benn tweet nii dafa am ay journalistes corrompus ci force déstabilisatrice yooyu la ñu bokk. bi ñu waxee force occulte Sénégal à partir de 2021 répété waat que 2023 ministre de l' intérieur ay autorité ñoo ko mm-hmm. président de la ministre de l'intérieur le procureur def conférence de presse wax ci force yi man gëmoon naa ko parce que man autorité bu waxee damay jàpp ni autorité bi mu wax loolu la parce que force sécurité amu ci ñun amuñu ci ñun information parce que force autorité mooy force yoo xam ne ay force clandestine la dañu làqatu organisé c'est pas des force étatique reconnaître ñu leen parce que am nag ay objectifs yoo xam ne du objectif yu baax loolu mooy force occulte yooyu bari na parce que ay façon la sànq rek yéen nga wax saisi drogue yu metti phobie yi mu ngi takkarnaase saisi ñoo ñëpp ay force occultes la maintenant am nañ problème aussi avec le djihadisme si suñu sous-région euh, ci pays yu ñu enture yëpp surtout ay Mali Niger Burkina am nañ difficulté ak jilee djihadistes amoon nañ attaque en Côte d'Ivoire au Bénin et cetera jihadiste yëpp le Mujnim euh, le groupe euh, de soutien à l'islam et muy beneen groupe bi le grand l'état islamique mm. dans le grand Sahel ñoo xam ne waa Daesh la ñee waa Al-Qaïda la ainsi de lu ñuy rêver mooy am accès ci façade maritime bi de la Mauritanie o au Bénin euh, au Togo sax laay wax ainsi de suite mën a am Dakar wala fenn xam dañ fi mën a génn pour que mën a am ci accès ci façade maritime yooyu xam nañ ko mm. réseau yooyu force de et sécurité yi ñu ngi ciy liggéey tout le temps yàlla mu ngi ci dimbali Sénégal te ñu ngi ñaan loolu mu continuer mais débat boobu li ko yàq bi Félix waxee président Macky Sall wax procureur wax man ama ne ah kon de am na lu ci am loi d'amnistie bi moo yàq la mais loi d'amnistie bi moo ñëw effacé lépp donc population Sénégal ba léegi ñuy wax nii xamuñu ci force occulte yooyu dara amuñu ci information bu leer xamuñu ba xam lu am la lu amul la kenn leeraluñu dara c'est vrai qu'il y a la raison d'état c'est vrai qu'il y ay problème sécurité publique mais attention boo indee loi d'amnistie dafay teel xel yi parce que li bon ci loolu mooy la parce que il y a la menace potentielle wax naa ko sànq degré menace réelle bi nag laa xamul fu mu toll loolu force de défense sécurité yi xëy na ñoom xam ne mais euh, la menace potentielle est là wax naa ko sànq mais bu ko politiser politisation bi rek mooy problème parce que biñ koy wax ci temps président Macky Sall c'était pour viser un parti politique wane ne dafa am ay connexion ak ay mouvement djihadiste dafa am ay connexion ak ay frères musulmans dafa am ay connexion ak Massamba ak Mademba ak pétrole beeg gaz beeg nangam nangam hmm. donc Sénégal dafa nekk sous menace donc en réalité le discours c'était ça c'était te dem nañ ba ci biir gis loi d'amnistie gis nañ ni bon donc peut-être que dara amu ci woon d'ailleurs la preuve Diomaye aussi bien Diomaye que Sonko ñu ngi leen doon toppee atteinte à la sécurité de l'État complot xawma lan ak lan ak lan tey ñooñu bu ñu ko yëkkatee ñoom xawma syndrome Gadan Bara la xam ni ñuy tuddee syndrome boobu maanaam xale yooyu dañ bundu xataal bu ñu màggee tamit noonu la ñuy defaate seeni i doom dafa mel ni ñoom jëluñu les leçons parce que débat yooyu bu commencé ay ay forces occultes dañuy répéter exactement li xewoon comme ni ñu répété li xew également ci li ma doon wax sànq rek les poursuites contre ay journalistes poursuite contre ay hommes politiques. Hmm. fii également ñuy commencé di agiter. oui mais pour en revenir ci hmm. déclaration premier ministre bi. Hmm. Euh, je pense que bi mu ko soulever sax nee coow li ngeen di dégg temps yëpp dëkk bi di yëngatu. ñi ñuy topp ñi nga xam ne ñoo luubal alalu réew ñoom ñoo nekk ci suuf euh, ngir euh, perturber quiétude réew. absolument boo dégloo Waly jëf Bodian directeur du port. lu mu wax da ko junj. mu ni ay opposant milliardaire. opposant moom junj na wax ji. dem na ba ni foofu laa yem du ma ci xuus parce que bëgguma Ousmane Sonko mere ma. en réalité ñoom axe boobu la c'est-à-dire ñoom seen force occulte mooy seen opposant milliardaire milliardaire. Hmm. yi nga xam ne mën nañ leen a. capacité de nuisance. te du ñoom rek ah. Macky aussi boo xooloo temps yi temps yi maître Wade temps yi bi maître Wade nekkee bi PDS di door a wàcc. dafa xool ñi mu jàpp nañ ñoo ëpp xaalis ci biir PDS ñooñu la gën a stigmatisé ñoom Aïda Ndiongue Samuel Sarr Karim Wade ainsi de suite ainsi de suite c'est donc à chaque fois réflexe ñiy door a toog hmm. mooy ragal ñi fi jóge jàpp nañ am nañ moyen yoo xam ne buñ leen bëggee yàq déstabiliser leen hmm. ñu lëkkaloo ak yeneen doole ci suuf hmm. ma pour mën a yàq seen régime mais dañuy fàtte une chose ñoom ñëpp chapelle politique aussi bien Macky que ñoom Sonko et cetera que l'état du Sénégal les force de défense et sécurité seen yoon nekkul ci politique te ñoom ñoo yore la sécurité publique. absolument ouais. à partir de ce ñoom tout le temps à tout moment ñu ngi def seen liggéey. quel que soit le régime politique bi ñëw couleur bi ak quelle que soit la menace bi nga xamante ni moom mooy menacer le Sénégal. ils feront face loolu ils feront mm-hmm. loolu du affaire lu ñuy politiser. Mm-hmm. te nañu éviter également dans les débat dans les jongante politique dans la communication politique. ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy politiser hmm. histoire ay forces occultes hmm. ak ces histoires là hmm. parce que c'est trop sérieux parce que amoon dundoon nañ ko fii ba ba ba ëssi fii nga xam ne zéro buñ ko continuer di dund également zéro parce que bus bus yaraax bi amoon na fi cocktail molotov et tout mais loi d'amnistie bi dafa ñëw tëxëñ lépp effacé ko mu mel ni donc dara amu ci woon donc bu ñu indilaatee débat ba dañuy jàpp ni rek c'est très politique et dans tous les cas bu fekkee dafa am ñoo xam dañu lubal alal askan wi la reddition des comptes les lois de la république permettent may na man na may yoon. mu mm-hmm. topp leen ci anam bi gën. et ñu agsi ci li nga xamante ni mooy en surenchère. Mm. ci wàllu communication. Mm. parce que ci wàllu woowu lañ nekk. Mm. mais day laaj nag. ñoom ñu am tous les pouvoirs parce que amaguñ nag tous les mm. parce que assemblée nationale te mënaguñu installer la haute cour de justice par exemple pour topp certain nombre de personnalités. Mm. là il faut faire attention parce que ñoom itam dañoo nekk ci situation presque de cohabitation. donc il faut que mm. ñu waxtaan ak. Euh, opposition bi. xool nu ñuy euh, liggéeyee pour l'intérêt supérieur du Sénégal. pour mën a fair passer les réformes ba ñu dugg ci guerre politique boo xam ne amalul Sénégal benn merci beaucoup merci doyen Assane Samb ci jàngat bi merci alors euh, dañuy ñëw léegi rek euh, dalal suñu gan ginnaaw benn pose bu gàtt.